Alioune Soumaré ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi. maa ngi lay fay Elisabeth. di nuyu waa suñu auditeurs réew mi FM yëpp. effectivement ngay ngay consultant réew mi FM ancien international football euh, di technicien également euh, ñu bëggoon rek euh, sa jàngat ci match tey ji loo ciy xaar. match tey bi liñ ciy xaar mooy ndam. Mhm. ndam ndax li tax ñu war a am ndam mooy Sénégal dafa nekk équipe bu mag. depuis trois quatre ans. ñooy équipe bi jiitu ci Afrique ci mm-hmm. classement FIFA. Mm-hmm. ba pare ñu firndeel ko ak kan bi ñu mujj a jël barke démb. Mm-hmm. donc loolu ñoo yooyu nag mooy tax ñu ne Sénégal ndam la war a am parce que tamit c'est pour ne ñu ñu damm suñu tànk parce que dem ci kan dem ci mondial bi dafay firnde. trophée bi ñu jël ci kan bi yóbbaale ko ci si ci mondial bi dafay gën a yokk doole football sénégalais. moo tax ñu war a dem bu baax ci match pour yàlla nañu ci ndam. ñu góorgóorlu si aussi ba nga xam ne parce que ñi ñu dajal tamit ay ay njàccaar lañu. Mm-hmm. ñu yàgg jël ay kaan la yàgg dem en coupe du monde. Mm-hmm. donc mu noonu nar a jongante bu méttee métti métti mais yaakaar naa ñu amee taxawaay boo xam ne buñ ko ci amee yàlla mën nañu defal jàmm. tànk nga wax ko ci kàllaamay nasaraan ne euh, Sénégal mën naa génne boppam ci piège bi ñu Égypte dugal euh, da nga jàpp ne Égypte daf ñoo piégé nii. waaw Égypte daf ñu yàgg piégé parce que boo xoolee même ci final bi ñu jógee. joué nañ ko ba mu jeex te dugalul leen bi te Sénégal rarement lay joué match en Afrique te dugal donc ñu ñëwaat dem dëkk ñu joué xañoom ba mu jeex dugaluñu moo lay wan ne ñii xam nañu à peu près gàllaaju Sénégal. Mhm. gàllaaj c'est-à-dire nu ngi koy nu ngi koy nu ngi koy naxee pour pour pour mu génn ci match mhm. donc ñoom dañu am entraîneur boo xam ne ku ñu tuddee Carlos keros koo xam ne dafa am expériment expérience. Mhm. qualifié na coupe équipe yu bëri a nation yu bëri ay coupe du monde parce que loolu spécialité am ba pare Égypte am ay joueurs yoo xam ne dañoo tàmm jouer en Afrique boo xoolee à part Salah ak ñaar wala ñetti joueurs. Mm-hmm. ñi si des ñëpp ñu ngi seen dëkk di jouer. muy Égypte ba pare compétition africaine yëpp dañ ko tàmm di jouer fu ne dem nañ fa en Afrique jël façon titre bu nekk seen club muy Al Ahly muy Zamalek muy euh, Pyramids. Mm-hmm. donc ces joueurs yooyu rek ñoo nekk si équipe nationale bi. donc ñooñu yaa tàmm nañu ay yuuxu tàmm nañu ay tàngaay tànga nañu terrain bu baaxu terrain bu baaxu parce que dañ ko miin. Mm-hmm. moo tax mu nekk piège muy benn beneen bi mooy tacticien bi nekk en face xam na Sénégal li muy mm. xam na ne côté gauche yu Sénégal Saliou Ciss ki ñi nga xam ne moom la ñu faloon latéral gauche bi gën a xarañ ak Sadio Mané joueur bi gën a xarañ fexe na ba ñoom ñaar ñu couper seen seen diggante seen relation donc Saliou Ciss bu yore bal sax du fu fu Sadio ne nekk. Mm-hmm. ñu placé fa ñetti joueurs yoo xam ne ñëpp dañu mën a marqué xam nga loolu tactique la. Mm-hmm. la étudier na Sénégal ba nga xam ne soo ko buggee jaaxal ni nga koy doxalee moo tax ma ne piège la. Ah, bu ñu delluwaatee ca Égypte euh, keroog ndax jàpp nga ne Sénégal joxe woon na lépp li nekk ci biir bi euh, lépp lu mu yoroon euh, pour am ci dara ci match boobu nga xam ne mu ci am. waa jéem nañ ko de Elisabeth mais xam nga Sénégal daf tàmmul tàmmul di jouer rek bëreet rek mu encaissé bi. Hmm. boo seetloo boo fàttali ko gëj nga gis loolu Sénégal. Hmm. waaw ah, parce que Sénégal en général bu joué Afrique mooy dominer adversaire am ñëpp adversaire am dañ koy xaar dañ koy ragal mhm. moom mooy defal doxal ba mu neex ko rek mu ko dugal benn ñaar wala deuxième état mu daal di def différence mhm. jékki rek bërët rek ñu encaissé bit loolu yi seen bopp bett na leen mhm. supporters yi seen bopp bett na leen Aliou Cissé si ko ba nga xam ne euh, dem nañ ba ci biir ressaisir nañ ko commencé sax développé mais fekk na égyptiens yi nag yokk confiance parce que ñoom bi ñu ñëw dañ ragaloon Sénégal parce que man dama bokk si ñi xalaat ne Égypte euh, euh, li mooy mbébétam yëpp mooy tenir en échec Sénégal aller ak retour demaat ay tirs parce que mm-hmm. ñoom loolu mooy seen spécialité. Mm-hmm. ñoom te te dañ koo mën. Mm-hmm. bee passé dafa mooy si ñoom rek mais lool moom xam naa ne xam na ne Sénégal am na doole boo xam ne gagné ko day jafe. dëgg waaye yóbbu ko ay tirs au but a yomb si ñoom surtout bu buñ koy defee à l'extérieur nga xam ne a moins de pression si ñoom. donc moo tax ma ne match bi piège. tey sur le plan euh, bu weesoo plan sportif ndax am na yeneen facteurs yi nga xam ne booloo woon nag keroog ba tax Sénégal déstabilisé wu ci côté googu. ah oui facteur bi d'abord mooy euh, euh, nit ñu nit ñu dalalee. Ah. ay yuuxoo nga dugg si stade di def échauffement ñu lay yuuxu def la ay laser sonal la defal ay kii yooyu yëpp ñuy def sa hymne national nga taxaw nga xam ne ni mu amee solo. ñu ne yuuxoo xam nga yooyu am na joueur yoo xam ne mosuñ ko dund ñu ngi koy door a dund. ay genre Abdou Diallo ñoo xam ñu ngi door a gis loolu entre mm-hmm. ko woon sax si àdduna. Mm-hmm. muy benn. Mm-hmm. deuxième bi mooy bit bi jël suba teel. kooku tam déstabiliser ba pare Abdou Diallo nga xam ne si ñi ñi daan stabiliser défense bi la bokk gaa ñu génn. xam nga loolu dafay day déteindre un le moral de joueurs parce que football li ñi ñi xamul mooy football dafa dafa. dafa doy waar mhm. c'est pas une science exacte mhm. comme on dit cest a dire que li li reenu ñàmbi la li mu fu mu mun a dammee sax doo ko xam <laughs> xoolal bit boobu nga xam ne ba Salah daf ko mu dal ci baar bi saa lu suy si traîné mu dal si tànk bi dugg xam nga loolu kenn mënu ko sóoraale ci mhm. football voilà yooyu mooy tax ak euh, Sénégal euh, xaw a am tuuti euh, njàq mais dellu si waat na si match même boo fekk na Égypte avec seen public bi am envie de de de se parce que ñoom dañu dañu waatoon ne bu Sénégal ñëwee dañ leen ko gagné ndax li leen daloon ci final bi. Mhm. jooy nañ ba sonn mais xam nga joueur boo xam ne dafa déterminé ah. onze onze onze bonhomme fii ak onze bonhomme fële ñu daje. kii mhm. am am pas-pas boo xam ne yow amoo ko des fois mun na mun na la mun na la sonal. surtout ngay bëre ci kanamu mbokkam. waaw laa si biir këram. xam nga koo fekk si biir këram bëgg ko fa toroxal moom yombul de. du yomb euh, tey mu mel ni sénégalais dañoo pare pour fay naar bi xoromam. ñu ngi ciy defan ñu ngi ci defante gu metti euh, gis nga aéroport ci dalal gi. Euh, mhm. bëgg a ki nga xam ne moom mooy Salah ndax foog nga ne mhm. tamit ñu nit bu ñu adopté posture boobu dina doon formule bu baax bi. loolu dina si am tuuti xorom xam nga tax. Hmm. parce que sénégalais dañ yàgg wax ne pays Teranga la boo fi ñëwee dañ lay dalal toppatoo la waaye léegi wan nañ leen ne. li ngeen defoon naar bi comme terme boobu sax dafa am solo c'est approprié fay nañ dinañ fay naar bi xorom parce ay naar lañ dinañ leen fay seen xorom donc ñoom xam naa ne loolu xam na dina leen jaaxal tuuti. Uh-huh. dinañ ci am tuuti njaaxare parce que ñoom tam bu ñu ñëwee fi stade bi fees mm-hmm. yuuxu leen salaa bu tegee tànkam ñu yuuxu saa yu laalee bal ñëpp yuuxandoo ko. Mm-hmm. <laughs> loolu mun na ko wàññi. Mm-hmm. te loolu buñ ko defee ñu jël. parce que tamit euh, qualification la ñuy wax te qualification moom loo mën a def. pour sa adversaire tiit loo mën a def pour jë ndam danga ko def yëpp dans la légalité quand même dans la dans la yuuxu moom kenn terewu ko kenn xam nga public moom bu la neex bu la neex nga yuuxu dëgg la am nañ ci droit léegi nag li ñu war a def mooy saa yu salaa bal ñëpp jógandoo yuuxoo xam nga bu yàggee sax moom du buggati sax ku ko paas ba. mais gisoon ne détermination yi bokkul Égypte ñoom gratuité lañ dox mais ñun dañoo fay euh, teewul mbir yi fees na. waaw parce que xam nga Égypte li tax ñu def gratuité parce que bu ñu defoon fay ñoom ñoom déjà ñoom yaakaaruñu woon ne mën nañ gagner Sénégal parce que Sénégal bi ma ko waxee si njëlbeen mooy la meilleure équipe africaine du moment. Mhm. donc kuy dajax moom da nga naan man daal fii naa fi jéem a jël rek euh, match ni ndam bañ a dem bañ a weer bu ma dem di fa def loo xam ne daf may gañ. Mhm. xam nga joueurs yi loolu dañ koy bi perte par tir au but sax que gàcce bi dafay daal di. nga jàpp ne dooleel bi tamit euh, bi nga gis ne euh, ticket yi fees na comme ni ma ko waxee stade bi fees na ndax dooleel googu dina gën a jox coup de pousse équipe bi. waax sax dina ko jox mais li ñuy li ñu ciy ragal kañ mooy gars yi dagg bi ba pare sol seen costume ak seen jëf yar ñëw toog di seetaan loolu moom. Hmm? <laughs> loolu moom xam nga Sénégal loolu dañ ñu ko yàgg bàkkee. Ah, ci la bokk bu seen bu seen bu seen sélectionneur solul costume ak veste kay. Ah, xanaa sol sol costume parce que déjà booy dem ci xare sol costume moom bu ñu xëccee sa cravate dañ lay xoj. donc <laughs> voilà donc daal na sol na sol blouson sol maillot Sénégal taxaw. d'accord def noonu ñu taxaw yuux Mhm. yuuxu yuuxu bu ñu def hymne national seen ba ñu yuuxu leen bu ñu laalee bal ñu yuuxu leen si si eh, quinze premières minutes ñu jéem a dugal but rapidement euh, daal di daal di leen poussé ñu wàccat di xaar nga am benn deuxième bi am jàmm. kon daal na guerre bi saf mondial. non guerre day saf mondial. <laughs> sur le plan euh, technique tey euh, loo foog ne Aliou Cissé bu ko joxee mën naa am avantage ci Égypte. waaw léegi Aliou Cissé daal bi paa dañ koy ñaan mu am fit fit fit mooy. Euh, changé c'est-à-dire ñetti milieu de terrain défensif yooyu ñuy faral di a mm-hmm. nga xam ne moom yooyu moom daf gëm ci xolam mu jéem parce que égyptien bu ñëwee bii Dakar du ñu attaqué ku la attaqué wul sa dëkk kañ du la attaqué sa euh, euh, yow bu la fekk see du la attaqué. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. donc donc ils euh, ñëpp si ginnaaw dañuy taxaw di xaar comme ni koy xale di waxee dañuy jël bus rek teg ko si seen kanamu camp. Mm-hmm. di xaar <laughs> donc il jël si militaire am un joueur boo xam ne day créer. c'est-à-dire moo xam ne mun na éliminer benn adversaire am ouverture passe ñoom Sadio Mané bal yooyu lañ soxla. ay dañu am ay jours de rupture yoo xam ne il faut nga mettre leen dans dans des conditions ñu mun a daw comme a Sarr génn mais bu daja bloc ba nga xam ne doo am foo dawee da ngay jaaxle. Mm-hmm. waaw te en face comme ni nga ko technicien bi ñu am Carlos Queiroz dafa xarañ ci football. Mm-hmm. jàng na Sénégal jàngat ko ku si nekk la nga mën la nga la nga tële xam na ko. Mm-hmm. donc loolu la ñu ñëw mettre en place donc. Euh, donc moom il faut mu def loolu ba pare jël ku mel ni Sabali nga xam ne mi ngi en forme actuellement ak Séville mhm. ñëw dugal ko parce que moom défensivement il est bon et offensivement il apporte un plus. Mhm. donc loolu il faut mu oser daal. Mhm. def ay changement au moins deux ou trois changement ci équipe bi yoo xam ne mooy permettre équipe bi am taxawaay technique bu ëpp li li faral di wane. organisation bi tamit noo ko apprécier stade bi déjà moom fees na donc euh, malgré bi yi ñenn ñi ne nañ cher na euh, ñenn ñi ne abordable na euh, daanaka ku nekk ak sa commentaire. waaw ku nekk ak sa xam nga déjà Sénégal moom dafa metti déjà dëkk bi metti na dëkk bi waaw sant na lool daal léegi na marché bi tax na ba nga xam ne nit ñi dafa am lu ñuy bàyyi dem jënd billet dem. Mhm. ndax seen dëkk jaral na leen ko équipe nationale bi jaral na ko ba pare li ñu won fële ñu Mm-hmm. maintenant euh, organisation bi nag peut-être que amuñu benn mas euh, boo xam ne mënoon nañ ko def pour répéter bu nekk genre kii daal daal une répétition par rapport à, à la compétition même parce que bëggoon nañ organiser beneen mas euh, championnat mais en tout. Mm -hmm. donc on verra maintenant à, sur place à compte aussi de la situation. Mm-hmm. xam naa ne y aura certainement des débordements dina am xam ne ñu ñëw ba ci du ñu am du waaw loolu moom moom mënu ñàkk moom mm. dina fa am te loolu yàlla bu mu indi daal ay ay ñagas-ñagas rek parce que euh, voilà pour man stade bi rafet na jekk na mais pour man capacité bi dafa tuuti. mu mel nit sa tiitaange ngay wane nii. ci waaw sama euh, tiitaange waaw. waaw parce que ouverture Elisabeth parce que waaw parce que actuellement Sénégal nit ñi bëgg nañ football football boo xam ne stade cinquante mille places doyatu leen. dëgg la surtout équipe nationale bu ñu bu ñu waxantee dëgg il faut voir grand c'est vrai stade bi rafet na. waaye capacité bi dafa tuuti léegi ñu ngi ñu ñaa ngi daa wax stade soixante dix mille soixante quinze mille places voire cent mille places sax mais bon àggaguñu foofu mais cinquante mille places ak ak fi bu su tey jii boo ko ngoonee di nga xam ne tuuti na balaa midi stade na fees ku ku demul midi bu la fekkul stade boo ma tuddoo dugg. bëgg nañu football te it violence bi rax nañu fa ñu ah, yokk ko. bon exactement moo tax na xam nga violence bi ñu commencé. <laughs> Uh-huh. ci frustration. dëgg par exemple nga ñëw ba stade ah jóge xam nga jam naajo fi mu soree nga jóge xaw ma fan jël train lu ne nga jël ko ba àgg foofu mm-hmm. nga ñëw na lu doo dugg loolu moom déjà nga commencé mer léegi nag boo gisul loo xam ci match bi mais c'est ça ça la porte ouverte à toutes les dérives. d'accord loo gis mm. tey comme pronostic. pronostic bi ma gis daal. Mm. man bu doon <laughs> man li ma gis. li gën a abordable lu gën a euh, rationnel. deux buts à zéro un but par mi-temps. ndax deux buts yomb na ci Égypte. waaw yombul moo tax ma ma ma ma ma ma ma daggat ko un but par mi-temps. <laughs> xam nga <laughs> xam nga Elisabeth boo dugalee benn but premier mi-temps. Égypte ba léegi si boppam. génnul euh, toogagul day donc bu demee deuxième mi day jéem a préserver bit boobu te xam nga préserver résultat moom moo gën a naqari gérer fii parce que il suffit d'un petit coup franc wala benn corner wala bal bu daal si baar kon li ñuy dal fa rek daal si tànku nit mu dugg boo amee un but par mi-temps moom tu t'en sortiras tranquillement ñoom bu boobaa dinañ jéem a génn pour attaquer la. Mm-hmm. boobaa nag on aura beaucoup d'espace pour marquer un troisième voire un quatrième.